RTS 1 triangle sud de Dakar waxtu wi Bissimile na bisimila ci xibaar ci wolof ci président de la république euh, d'alors ab euh, makan boo xam ne nga mel ni nag euh, béréb boo xam ne it euh, bees la te daal ci liggéey lu am solo loo xam ne yokkute rek lay doon ci wàllu koom xawatina it ci wàllu wéccee xalaat saa su nekk daal ci mën a dalal doomi aadama yi xibaar yi dina wax ci loo xam ne moo jàpp jëm ci journée de la femme xam ngeen ni màggal nañ ko ci réew mi màggal ka ci àddina bi naka noonu fii ci RTS euh, màggal nañ ko fii ca Ndar it waaye ci ministère yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp daan nañ ko màggal nañu li nga xam ni moom moo di soxna yi loolu it daan ci dellu si lu yaatoo yaatu ci biir ëttu xibaar xibaar yi lay doon de noonu xibaar yi dina wax it ci Jeux africains xam ngeen jamono yi Ghana Jeux africains yooyu nag Sénégal am ci ndam lu njëkk ginnaaw match football boo xam ni mi ngi ko seqoon ak Soudan du Sud daañu indi résultats yi ak suñuy ndaw foofu ci Accra naka noonu it prolongé nañu contrat pour entraîneur bu équipe nationale bu football di Aliou Cissé loolu it ay leeral ak Ibrahima Mboup lay ñi ngi leen di nuyu ngi télévision nationale ñi ngi euh, it euh, di télévision nationale waaye it am lool RTS euh, 1 président de la République amal.

bu yanj te dëppook jamono rawatina ci wàllu environnement Diamond Green City di projet yi bu sóoraale bépp jumtukaay ba ñuy soxlo ci dëkk mu di éco quartier bu ñaar fukki hectare promoteur bi di Nabil Reyad di ko wanaleeg njiitu réew mi président Macky Sall muy rafetlu xalaat bi ak motuwaay yi ñu jël ngir jëmmal ko fekk si nak vocation yu bare tay wuute yi ñuy nemmeeku fi si Diamniadio naka nonu njiitu réew mi président Macky Sall di rafetlu bu baax DGPU ci njitalu amal na fi mu di rek dina yombalal yi ñu ñëw fekk si ñi nga jot nañu fisi fii ci projet bile mu am itam ay partenaires technique yi leen di gunge rawatina ci wàllum njàng ak njàngale ci daara bi fi Canadian International School of Africa di taxawal ak it wàllu wérgi yaram di polyclinique bu Imosène wàllu dëkkuwaay di lu soxal njiitu réew mi président Macky Sall jam ñaajo war a doon solution ci jafe-jafe yi Ndakaaru ak banlieue di dund jamono ji

di Diamond Green City fas fi amal Lep, lu fi résident yi mën a yittewoo. Aboubacry Kane lancement et travaux UPS, bees yoo xam la ville nouvelle du Diamniadio président de la république dalal na ni euh, ñi nga xam dañ leen ragné ci MFDC ñu nekkon nak ay combattants yu yag

di pàcc bu am solo ci MFDC nekkoon ci àll bi di xeex tey nag ñu wéer ngànnaay yi yemuñu ci waaye taal ko ngir rekk wane ni dogg nañu jamono jile ngir rekk jëm ci jàmm ànd ci ak senegal yépp newoon naa ci atum 2014 fukki at ci ren te man ñoo ci Ziguinchor faw ñu dox jàmm suñu diggante joxante loxo waruñ seet kii moo gañe wala kii moo perte kenn kenn du si gañe kenn du si ñun ñëppay per ndax bu deret tuuroo ci réew ñëppay perte kon nañu am fitu dox jàmm fexe ba euh, ngànnaay yi kenn dootu ko dégg ci Casamance lañuy ñuy war a dégg mooy ay machine usine yuy tourner la war a dégg mooy oto yi daw ci tali yi ak tracteur yi nekk ci tool yi ak machine yi nga xam ne moom la jox jigéen ñi pour ñu wàññi seen coono liggéey loolu moom mooy moo jar def guerre guerre pour le développement guerre pour la modernité foofu la réew yi di rawante waaye du si ku la gën a bëri ay kalachnikov wala ay arme loolu du yóbbu réew si kanam. li waral li yëpp nag mooy comité ad hoc bii nga xam ni mooy kuréel bu njiitu réew mi teg fukki at a ngi nii ngir rek ñu liggéey ci wàll wi te boolewuñ ci ak coow mu loolu nag moo jur lii nga xam ni mooy jéego yu ñu am tey. problème Casamance dafa sérieux du loo xam ne dañ koy fooyee di ko waxee ci ay plateau de télévision ak di ko waxee fu ne ak di ko mbubboo musu ñoo sax bëgg ñu xam ñu xanaa léegi si bi nga xam ni alors résultat yaa ngi tombe ñu ngi signé ay accord di di taal ay ay gànnaay.

jàmm ju ànd ak développement loolu la njiitu réew mi euh, jëfe ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi mu doon liggéey ci wàllu jàmm ju muy wut Casamance ci ay kàddoom nag fàttali na solo bi mu jox wàllu woowule. lii lu rëy rëy la du lu tuuti parce que processus maanaam bu ñu dox jàmm lu mel ni am ay ñu yoroon ngànnaay teg seeni ngànnaay dañu ñëw lakk ngànnaay yooyu. tey jii ñu dalal leen fii ci makkaanu réew mi day wane ne kon jéego bu yaatu yaatu def nañ ko sant si yàlla bu baax sant ñu ko dox ak ñi ci nekk ak waa armée bi di liggéey si suñu ndigal pour que ñu dox jàmm si Casamance ne woon it jàmm li koy gën a saxal mooy koom-koom te Casamance li ko gënoon a tënk moo doon ñàkk ay yoon ndox mi wër ko ñàkk ay pom euh, mbéy mi jafe liggéey jafe loolu dañ si war continuer di dox ay jéego waaye désenclavement bi moom yàlla def na léegi presque c'est réglé ndax dem Casamance ñëw léegi dem Ziguinchor dem ba frontière park nekkatul lu jafe ci wàllu yoon nekkul lu jafe ci wàllu roppalaan aéroport nekkul lu jafe sax si géej gi ba bateau yi taxawoon war nañ ko tegaat ci géej gi ngir ñu mën a dem bi ak dëkk bi di gën a yomb te pont Foundiougne bi tam dina gën a yombal ba tey dem Casamance ak tali bi war a jaar Fatick funjuñ Passy xam ne day rejoindre euh, yoonu Banjul wala yoonu Farafeñ kon loolu yëpp nag buñ ko defee te amuñu waa Casamance yu bëgg jàmm kon du sotti mooy li fi nekkoon boobu léegi waaye nag

ñi nga xam ne tey jii ñëwaat nañu la vie civile te dox jàmm ñu mën leen jàppale. comité ad bi nag liggéey bu am solo bi ñu def ànd nañ ci ak ay facilitateur maanaam ay kuréel yoo xamante ni dañu doon dox diggante bi ngir rek lépp euh, mën a ñoŋ ànd ci nag ay partenaires financiers ñoom ñëpp nag ku ci ne jël nga kàddu wax ne li ñu liggéey ci wàll wi dafa fekk ni njiitu réew mi li mu doon tëral ci wàllu doxaliin daf leen doy moo tax ñu ànd ci ak comité ad bi président de la république nag ñoom ñëpp euh, gërëm na leen sant leen ci seen taxawaay waaye tamit dellu di sant waa IRAPA ak euh, ex combattant yi ñëwoon tey di leen wax gàcce ngalaama di leen gën a ñaax nag euh, ñu gën a dëgëral jéego yi ñu am.

ci suba ak léegi fi ci RTS radio télévision bu Sénégal ci Triangle Sud ñom candidat yi ñi ngi ñew ñu leen di enregistrer fi ci studio yi bokk na ci ñoñu Thierno Alassane Sall ak euh, Habib Sy. ma gis na RTS ci bâtiment ak ay mobilier matériel vraiment évolué na ci Racine Talla loolu moy deug dañ koy wax kon ñu diko féliciter bu baax. mais ñun nak bu ñu jëlee pouvoir bi inshallah allah yu bëri danañ ko soppi ci RTS parce que man dama japp né presse.

période bu jafe ndax dañu nekk ci période Ramadan euh, nekk ci période carême waxtu yi nga xam ne foofu la meeting yi doon gën a tar booba nit ñaa ngi ci seen ndogum koor ak séeréer yi surtout ci ngalax yeeg yooyu bu boobaa dina xaw a doy waar pour ñu am campagne mais dinañ ci jéem suñu kem kàttan pour teg ay pexe yu bees yoo xam ne day méngoog lii situation bi laaj ci pour ñu mun sénégalais yi mun ñu dégg bu baax a baax. Thierno Alassane Sall candidat la ci élection présidentielle yi ñu jëm ta mom déglu ngène Habib Sy moom di candidat noonu it euh, candidat yi jaar fi yëpp ci studio yu rajo télévision bu Sénégal di ngeen leen topp ci suñu ëttu xibaar yi li ab bataaxal la bu dikk jóge ci rédaction bu journal télévisé di leen fàttali ne du yàgg di ngeen mën a topp publication composition gouvernement bu bees bi nga xam ne maître Sidiki Kaba moom moo ko jiite di premier ministre loolu dina nekk en direct ci présidence de la république fàttali kon gouvernement bu bees bi nga xam ni Kaba mi nga xam ni moom le président de la république Tabu fan yi ñu génn gouvernement boobu nag li ko composé ministre ya ca nekk ci biir da ngeen ko dégg du yàgg siiwal ko fii ci radio télévision bu Sénégal balay euh, booba ñu fàttali rek ñu ngi ci journée internationale de la femme du sargal jigéen ñi noonu président de la république sargal na jigéen yooyu liggéey ci présidence de la république bakri Kane ci bés bi ñu jegleel jigéen ñi ci àddina bi yépp njiitu réew mi président Macky tam di ci dalal jigéen ñi bootu ci kuréel gii di amical des femmes de la présidence de la république mu di nag loo xam ni jigéen ñi ñu ngi koy rafetlu bu baax a di la gërëm di la sant te di la ñaanal yàlla ndax fonkeel weesuwul xat-xat bi amati nga duggaluñ ci sa calendrier pour recevoir ñu loolu ñu la ci gërëm di la sant ñu danoo yokk waaye wàññeeku bi nga ñëw ba tey yaa di jàppale di dimbale te yàlla rek a tax li nga def ci Sénégal nag kenn amul payam sagal nga jigéen sagal nga xale sagal nga mag bàyyi woo kenn da nga ne yoonu yokkutee yoonu yokkute bi da ko tracé ñëpp jaar nañ ci bari ñu ngi dem de Sénégal ku nekk ka sa bopp ci développement ñun de li ñuy jooy mooy li nga xam ne rek yaa ngi dem te mënul ñàkk nit dina dund na de séparation dina am nga tàggoog yaay tàggoog bàyyi tàggoog lépp lu jeex nag yàlla bu ko yàlla rek jeexal na ko waaye nun de doyalul fu nekk rek ci Sénégal def fa une marque indélébile ci yoon yu nekk nag ci yoonu yokkute bu nekk kenn xalaatatul dara yokk nga yëpp ci pour le mieux ci du Sénégal Sénégal kenn du la ko bëgg vous êtes respecté partout wax ma sax ci Sénégal mais à travers le monde parce que ñun dañuy xam nañ xew fu nekk nañ la respecté Afrique président bu mel ne yow nag maa koy osé di ko wax fii tey kenn du am président bu mel ne li ñu lay ñaanal mooy foo rek yàlla dafa yàlla jublu Afrique soxla na la monde bi sax soxla nañ la yàlla na la yàlla defal jàmm yokk seen xéewal defal la jàmm defal ko sa njaboot foo jublu rek yàlla dafa yàlla jublu yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla sàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga def ci Sénégal kenn amul sa am ñu sa pay yàlla na nu yàlla fayal la te yàlla sàmmal na yàlla taxawul la macha allah mu itam occasion pour ñi nga xamni ni ñoo ci courel googu ngir ñu ci wat ci liñu ñu teunk ci memorandum biñu jéglélon jagleeloon njiitu réew mi ci 8 mars biñu génn waaye itam waxtané li nga xamni mo moo leen soxal ren jile Mariane Yande Diouf mi jité amical bi di jaajëfal bu baax njiitu réew mi président Macky Sall ci lim leen jot defal ak xel bi nga xamni bayina leen ko bu baaxa baax di leen gunge ci seen i programme ren nag ñu fas yéene amal ay œuvre sociale jëmale ko dalal jàmm bu géejawaay fas yéene itam amal conférence di ci waxtaanee thème bi di confidentialité et secret professionnel njiitu réew mi président Macky Sall di leen jaajëfal itam ci liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci makaanu njiitu réew mi mu di nag loo xam ni yombul benn yoon nde laaj na ay sacrifice rawatina Bodone bo doonee jigéen lu ñeel nak suuf si nga xamni ñu ko doon président Macky Sall dadi ministre directeur de cabinet ak ki nga xamni ministre secrétaire général de la présidence ñu Jeffy, di jëfee yi nga xamni jot nañ ko jël ci rendez-vous officiel bu mujju bi nak bi dox njit mi président Macky Sall ak ñi bok ci ñi présidence mu Tagoto.

moo du département ministériel bilé. avant sax communauté internationale di ko fête ñun fête nañ le 8 mars bu yàgg rappelé le 7 mars 1820 avec les femmes de donc ñun am nañ ay leaders am nañ ay idoles yoo xam ne ñu ngi def fête bi donc c'est tout à fait normal pour nous. tey nag da en tant que ministère Nous ndaw ñoo xam gouvernement du Sénégal état du Sénégal au service de la nation ren nak li nga xam ne mu aju ci walum euh, numérique manam xalal yu bees yi moom la ñuy ngir woné li nga xam modi moo solo si ci walum koom-koom réew mi. ñun nak en tant que ministère technique moy ministère bi nga xam moy chargé numérique communication ak télécommunication ñun dañu choisir waxtaan ci ñun deggulal ni ñun comme ñun nous sommes des soldats de l'économie numérique ñun ñu ngi liggéeyal ministère bi depuis ay at waaye am na ay stratégie yu bari teg nañ ko ñun nan lañu mën a def nag ba nga xam ne numérique bu ñu naan numérique féminin mooy numérique yi nga xam ne piloté nañ ko stratégie yoo xam ne piloté nañ ko pour pour et par les femmes et les filles nan la mën a nekkee stimulateur de croissance nan lay ñëwee ba nga xam ne émergence bi nga xam ne moom la ñu bëgg pour sunu réew mën nañ ko kii ci loolu nag am na ay stratégie yoo xam ne yu bari définir nañ ko ci ministère bi ci stratégie yooyu yi nga xam ne mooy permettre euh, réduction fracture numérique féminin nga xam ñu ngi koy ñu ngi koy liggéey fi ci walum li di architecture institutionnelle maanaam li ministère bi bindo jigen ñi amna ci ap taxway bu am solo ndaxte ñu bari ci ñom danaka ay kilifa lañu. ba mu ñëwé ci ministère bi luma jëk njëkk a constaté mooy jigéen présence jigen ñi amoon na fi déjà parce que dañ fi fekk ay ingénieur jigen ñu xarañ sax ñu fi liggéey. ak ñi nga xam ne ñooy nekk si yeneen secteur yëpp ñu xarañ ñu fiy liggéey ba jigéen ñi bari nañ ba nga xam ne fu ñu toll nii tey ñu ngi si 45 jigéen si euh, agent yoo xam ne ay 121 yu noonu lañ toll. mais ministre bi aussi musaa Bocar Thiam bi nga xam ne aussi ñu ngi réitéré suñu gratitude parce que moom dafa ñëw aussi gëm expertise jigéen gëm leadership bi nga xam ne jigéen mën na ko indi. si noonu nag la désigné woon benn directrice de cabinet xam ne jigéen la ba njëkkee ñëw directrice de boobu moo tey moom la ma.

ci ministère de la communication le ñu des ba léegi ak journée de la femme bi nga RTS Magal nako ko nak mi ngi doon amee ci fi nga xamné modi Arsenal modi di siège jamono yi bu direction générale bu RTS lepp nak doon am ci téwayu directeur général bu RTS reportage de bu Ibrahim Ndong muy woné jongem ci bés bo xamante ne bu Magal. muy bésu 8 mars ñu jagleel ko jigéen ñi ba taxna kii di Ndiaga Sarr daal ci journée de consultation gratuite bi nga association des femmes pour le bien-être social de la RTS du FABES Mokodali ko daal di organiser daal di fondation Debor Health ba tax na ñu fiy diagnostiqué yenn feebar Le dépistage cancer du sein cancer du col lol moo ñu fi andi depuis consultation bi mu commencé ba léegi alhamdulilah te seetlu nañ que ni que les femmes sont bien informées quand même ñu ngi toppatoo seen bopp ñu ngi def ay dépistage col yi nag alhamdulilah amaguñ fi cas suspect. mu mel ni nag nekkul woon ne soxna yi nekk RTS rek ñoo fi daal di teew am na ñeneen ñoo xamante ne fi tamit. dépistage lo xam lo am solo la ci jigéen parce que cancer fi mu toll motax il faut ñu remercier leen ñu ñuy jël ak wa jigéenu RT ci ñu inviter fi

depuis le dépistage mammographie échographie ba IRM sax bu qu'il y ait un na RTS boo jëlee bu nit ki waree fay 100 euh, francs RTS dina fay 80 francs ñi am jangoro bi ba pare ñu leen di faj ñu wara def ay chimiothérapie wara def ay radiothérapie lolu dafa cher euh, RTS tamit ci ñaar fukki dina jël euh, juróom-ñett juróom-ñett fukk dina ko jël. bu ñu waxee jigéen ne àdduna ba tax na ñu war leen a jox cër gën leen a fonk lool. seen wàllu wërgu yaram ñu war ko mën a gën a taxaw bu baax a baax directeur général de la RTS daal di dellu si si njëriñ bi nga xamante ne wàllu woowee am na ko si dund nit ki. li ngeen def pour seet mbirum cancer cancer col utérus cancer euh, sein xam ni sonal na bu baax a baax euh, jigéen ñi ak diabète ak euh, hypertension artérielle ku ci am benn ci feebar yi presque ce budget yëpp daf ciy dem di leen ñaax aussi que IPM yi ngeen di euh, yi ngeen samp ci seen société mu gën a farlu ci prévention ndaje bi nag doonoon na jamono joo xamante ne ñu ngi doon xamle pourcentage bu am solo bi nga xamantene soxna yi am nañ ko ci entreprise bi muy lo xamantene sen compétence bokk na ci likoy koy euh tay bo xolé RTS jigen yu bëri ñu ngi ci ay poste de responsabilité 42 manam bo maanaam témèr jëlee téeméer bu nekk euh, ñeent fukki ak ñaar. ay ay jigen lañu kon lolu aussi dañ koy santé suñu directeur général Racine Talla waye du loolu rek la def. capital bu ñu wara renforcer la nga xol aussi ci journalistes yu jigéen ñi nga gis ci animatrices yi franchement je pense que suñ doon def tey euh, concours ñoom góor ñi duñ leen yóbbul dara. l'association des femmes pour le bien-être social de la RTS di FABES dal di ci profité nag dal di jox ay cadeau ki nga xamante ne moo di seen collaborateur bu dëgër di directeur général di Racine Talla muy jamono joo xamante ne neexoon na lool waaye tamit di jamono joo xamante ne def nañ fa ab découverte Pour les femmes au sourire qui nous attire avec des milliers de roses on vous entoure on vous aime sans vous le dire on vous le prouve. vive les femmes de la RTS ci la des ba légui ci RTS Ndar itam fofit magal nañu jigen ña foofu ca Ndar ñu fekki Abdou Junior si bisu 8 mars bu am solo bi nag Saint-Louis FM dafa jël kàddu gi jagleel ko jigéen ñi Nous ñu tok fi eh, di waxtaan waxtaanu tolluwaayu waxtaanu pour delloosiwaat valeur yi jigéen ñi gën a xam fi ñuy pour donc ñun nga ñu gis nga fi ak fi di parce que occasion di tous les jours mais bis bi euh, permettre nañu euh, ñu ensemble autour tamit plateau spécial euh, suñu ay yi nga yi nga jigéen def na ko ak tamit li de li des xëy na lu ñu war a def. tey jii nag ay jigéen ñu jàmbaar te mën seen liggéey di faral di animer ay émissions yu am solo ci ay thématiques yu wuti ñoo seq waxtaan bi tey nag ñu amal édition spéciale bu am solo ñu ciy waxtaanee place jigéen ci biir société bi. jéego yi moom macha allah bare na lool lool lool ndax léegi corps de métier boo dem. jigéen a nga fa fa nga xam ne daal ñoon xalaat ne jigéen war na fa mën a toog léegi jigéen a nga fay nekk donc loolu nekk la nga xamante ni day am na solo et dañuy ñaan mu jëm kanam. te teewaay bi nga xam ni jigéen ñi am nañ ko ci biir média yi nag lu ñu seetlu la fii ci Saint-Louis. mu nekk nag lu am solo suñu seetloo place bi nga xam ne jigéen am na ko ci biir société bi rawatina ci lii di média yi. parce que tey fépp foo dem jigéen ñi ñu ngi fa su fekkee ñun fii ñuy liggéeyee muy wàllu média jigéen ñi ñu ngi fii di def seen rôle di ko di di def li leen war. ñu ngi si rédaction yi da ngay dégg battu jigéen ñi euh, yenn station yi sax jigéen ñi ñoo jiite su fekkee aussi dem nga si force de des défenses et de sécurité la même chose ngay gis donc jigéen ñi ñu ngi partout ñeen ñi nekk si secteur informel aussi la même chose ñu gis jigéen yi seen taxawaay rafet na média bi jigéen yaa ngi taxaw taxawaay bu am solo def ay émission de sensibiliser ndax jigéen mooy réew jigéen mooy société jigéen bu baaxee société bi yëpp ay baax su jigéen yàqu société bi yàqu parce que ñun ñoo jur njaboot gi ñoo yar njaboot gi kon chaque jour suñu fête la kon jigéen dafa war a a taxaw taxawaay tax dëgëral taxawaayam euh, gën a euh, ñoŋal liggéeyam rawatina mu joxe image bu baax joxe exemple bu baax ndax ëllëg suñu njaboot. 8 mars bi nag nekk na jamono ju am solo ci mboolemi acteur yuy liggéey ci biir rajo bi moo tax ñu profité ci sargal jigéen ñi ginnaaw waxtaan bi nag amoon nañ fi ay xewal yu am solo ngir tëj jotaay bi si anam ba mu gën a taaroo. RTS Saint-Louis moo di ndeyu rajo yi ndax rajo bu njëkk fii ci Afrique de l'Ouest ak Sénégal. ministère de l'intérieur Womit Magalne Djigeni, reportage le Boumoussa Moussa Mané. ci seeni mbagg ñu daal gis galon ñu ràññee ci ay gouverneur préfet sous-préfet commissaire officier inspecteur ou agent de police officier sous-officier bu brigade nationale des sapeurs-pompiers ñenn ñi nekk ay directeur wala ay chef de service yu Bok ci ministère de l'intérieur mu nek Fofu l'union promotion du genre Madame fexe Djigeni, Dadi. am waaye tamit ñu yem ci ay wàllu fonction nag daanaka lu kenn laam-laameewul ku ci nekk foofu am nga am boo amee compétence bi war amul benn problème pour ñu nommer la ci poste yi nga nekk ndaxte am nañ sax at yu nga xamante ni gisoon nañ fi jigéen bu jiite police te loolu mu nekkoon situation boo xamante ni bu bu bu bu bu inédit donc euh, du problème ci ministère de l'intérieur ñu am ko euh, jigéen ñi ci biir ministère de l'intérieur amuñu amuñu amuñu benn Euh, jafe-jafe pour pour évoluer ak jàll fi nga xamante ne foofu la nekk. ci thème bi ñuy naan investir en faveur des femmes et des filles et accélérer le rythme maanaam ñu doole lépp loo xamante ne dañ koy def ci wàllu jigéen yi ak xale ndaw yi daal di koy yokk bu baax a baax ñoom nag tey dañoo daje ngir waxtaan liggéey bi nga xamante ne jigéen yi ñu ngi koy def ci biir ministère de l'intérieur waaye tamit di xool nan la ñuy gën a yaatalee liggéey boobu di xool tamit jafe-jafe yooyu nan lañ koy dindi. tey ñoom la ñu dajale fii pour waxtaanee maanaam saytu xool li nga xam ne ci fukki at yu mujj yi moom lañu def maanaam ci wàllu investissement boo xam ne ñun daf ñuy jariñ directement. et loolu ci loolu am na boo xoolee ci euh, suñu positionnement stratégique maanaam ni ñu nekkee ci ministère bi soxna yi ñu ngi def ay jéego yu am solo ñu am soxna yi ñu ngi nekk donte milieu góor la maanaam wàllum sécurité boo ko waxee rek da ngay xalaat góor ñi mais soxna yaa ngi ci am jéego bu bu am solo. parce que am nañ ay autorité administrative maanaam mooy nga xam ne gouverneur benn gouverneur bu jigéen lañu am am nañ ñetti gouverneur yu jigéen am nañ ay préfet de département am nañ ay sous préfet am nañ ay adjoint préfet am nañ ay commissaire de police maître Sidiki Kaba mi nga xamante ne moo nekkoon jawriñ bi yor wàllu intérieur te ñu tàbb ko jamono ji mu nekk premier ministre moom mu ngi rafetlu taxawaay bi nga xamante ne jigéen yi taxaw nañ ko ci biir ministère de l'intérieur waaye tamit ci bataaxal bi nga xamante ne kii di secrétaire général moo ko liir nag moom nee na gouvernement du Sénégal mu ngi taxaw teem ngir gën a yokk lépp loo xamante ne mu ngi koy def ci wàllu jigéen yi. lépp boo ko bu buñ koy def euh, dafay wane ni am na jéego yu bare bare bare yoo xam ni def nañ ko ci secteur yooyu xëy na am na lu des. ñoom nag ñoo war a mën a xam lan lañu def lu bari ak lan lañu war a yokk ak lan lañu defagul ak lan lañu war a euh, joyanti ci ci ci def yi

ngook noonu la ñu journée de la femme ca ministère de l'intérieur. intérieur ñu xoolee naka lañ ko màggalee nag euh, ministère bi yor wàllu énergie ak euh, pétrole Saliou sec. bés la boo xam ne ni dañuy ñëwaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne jigéen ñu ngi koy def ci fi nga xam ne ni moom énergie lii nag ñi nga xam ñu may waa genre ñoom ñoo ko woote nag ñoom nag préféré na fi ngir ñëwaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni def nañ ko bés bi dañ si def aussi lépp lu nu mën pour mën a wane fi jigéen ñi toll ak fi secteur bi toll ci jëmmal jigéen. ci secteur bi jigéen ñi am nañu teewaay bu bu am solo. mais fi mu amee jafe-jafe mooy ci amul jigéen chauffeur amul aussi jigéen ouvrière des fois nag boo waxee ñu ni la am na yu nga xamante ni jigéen ñi duñ ko def mais ñi ngi liggéey. pour jigéen ñi mën a def yenn métiers yi. ci waxtaan bi préféré fii fi ngir ñëwaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ministère bi mu ngi koy def ngir fexe ba boole jigéen ñi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal. ñun tey si ministère bi am nañu benn lu ñu woowee plan d' action national bi nga xamante ni que am na ay pàcc yu bëri yu muy def. Euh, ngir que jigéen yi gën a mën a nekk ci secteur énergie bi gën ci am implication gën ci am tamit euh, euh, ay nu mu tuddati ay réalisation yu ñu ciy def pour mën a développer secteur bi T'ay bu ñuy xol euh, si walu euh, représentativité euh, Walum taxawayu jigéen ni si ministère bi T'ay lu ñuy wowe kuréel bu décider si ministère bi ñu wowe comité de direction du ministère bi moitié bi ay jigéen lañu bo jëlé directeur et chef de cellule euh bo xolé tay si ministère bi am nañu téeméer yo jël ñen fuk ak juroom ñaar ñi ay jigéen lañu te xam nañ né population Sénégal jigéen ni ñi ngi représenté ñen fuk ak juroom ñent donc loolu mooy wone que ñun ministère. équité bi ñuy wax ñu ngi si ñu ngi koy ñu ngi siy doxee am na ay amélioration ñu war a def si yenn métiers yi métier technicien yi nga xamante ne autres yi nga xamante ne que góor yi ñoo si gën a taxaw waaye waxuñu ko tamit suñu ministère am nañu ay cellules yoo xamante ne ay jigéen rek a fa nekk. bés bii nag nga xam ne ni dañ ciy sargal jigéen ñi nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci cellule genre profilé nañ fi ngir ñaan ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci kaw ñu jàppale jigéen ñi ngir ñu gën taxaw ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu énergie ministère de l'énergie et du pétrole ak Saliou Seck ministère du commerce walu jënd ak jaay mi ñoom it demul ñu des fofé digeen ñi wuy si nañu ci journée de la femme Seydina Alioune Fall jigéen yi nga xamanteni ni ñu ngi ci ministère du commerce nyomnak nag daldi nañu fété li nga xamanteni ne 8 mars bi couleur yi nga xamanteni ne sol nañ ko di nag gal li nga xamante ne nii moo di uh, ràññeeku ci nag bés bi li wolof wax dëgg la góor baax na jigéen baax na mais nag yéen yéenay jur yéenay yar yéen a ne ci bureau yi yéen a nekk ci commerce bi donc baax na ñu delloo leen njukkal wax leen ni ñu leen fonkee wax leen taxawaay bi ñu am seen wet ndaxte kër gu naat ak liggéeyukaay bu naat bu dox day fekk jigéen ñi am fa jàmm jigéen ñi am fa épanouissement jigéen ñi mën yëngu structure yëpp yi nga xamante ni ñu ngi ci ministère du commerce teewoon nañ nak fi ci place souvenir africain ngir nak euh, magal bés bi léegi mu nekk bésu rassemblement bésu bilan tamit nekk tamit bésu euh, xalat ci promotion leadership jigéen ñi ci biir administration bi. ministère bi ñu nekk it gis naa jigéen ñi seen taxawaay gis naa seen taxawaay seen euh, njàmbaar ci secteur bu nekk ci service yi moo xam ci service régionaux yi parce que liggéey bi du lu yomb. suñu service yi tamit fi ñu nekk dafa sori loolu yëpp gis naa ne teewul saa yoo demee ci service yi di nga leen gis ñu nekk ci liggéey bi nekk tamit ci li nga xamante ne mooy assiduité. jigéenu ministère commerce bi ñoom nag jox nañu mémorandum ki nga xamante ne ni moo di ministre bi mu nekk bés bi nga xamante ne nii euh, gannaaw festivité yi euh, nekk na tamit prétexte ngir ñu fexe ba nga xamante ne ni lii di investissement yi ñu jëmale ko nag ci jigéen ñi. ko ci jigéen ñi ba tey la des ndax xam ngeen ñoom ñoo xewle tey naka noonu am na jigéen joo xam ne mun nañu wax ne moom mooy première femme olympienne sénégalaise mu nekk nag ku ñu ràññee ci wàllu athlétisme Kumba Jaxate Maar moo ñu koy présenté. xar kanamam lu ñu la ci athlétisme ci jigéen yi Marie Julie Gomis Ndiaye moom mooy doomu Sénégal ci jigéen yi bu njëkk a ci Jeux olympiques yi booba nag mi ngi am ñaar fukki at ak ñeent. loolu ci atu 1976 la woon ca Montréal foofu nag jongante na fa course 100 mètres et boo xam ni jigéen yi lañ ko jagleel. sama xol seddoon na ma sawar ci ba dee vraiment sama dirigeant yi Bill Sall président Lamine Diack euh, suñu entraîneur yi Amadou Gakou moom moo ma entraîné ba ma dem Jeux olympiques. ñu nekk nekkin bu neex si Jeux olympiques yi ma am ci découverte yoo xam ne parce que booy def sport. à chaque moment am na ay champion yoo xam ne ay recordman yoo xam ne da leen di dégg rek mais doo leen gis bi ma demee foofu nag ça a été un grand plaisir pour ma di leen rencontrer. Marie Julie Gomis Ndiaye ci stade Iba Mar bii am na solo lool ci moom ndax fii la tàmbalee athlétisme fii itam la jeexale carrière am fii la daje itam ak ki nga xam ni tey jii moo nekk borom këram di El Hadj Mamadou Ndiaye ñu gën ko xam si Mara. moom tamit nekk ku bëgg athlétisme moom Julie nag nga xam ni bi mu bàyyee athlétisme ak léegi toll na si ñeent fukki at moom nag jotam yépp da ko jagleel njabootam jagleel ko itam li nga xam ni mooy leneen li mu gën a sopp ginnaaw athlétisme muy togg mi ngi wax ko RTS du yàgg dina indil gouvernement bu bees bi nga gouvernement bu maître Sidiki Kaba ñu tab ko premier ministre Yagul lool nak du yagit it ci joko ak wa présidence de la république ñu indi len kon liste bu bees boobule mbokk yi ngeen di ñaanal jamm ak télévision nationale. mbokk yi daal leen nag jàmm si xibaar météo yi leen ANACIM fas yéene faram fàcceel li gën a fës si xibaar yi nag mooy xibaaru ganax yi ñu leen yégaloon fan yi